ak euh, li ci mel ni loyer bi cher na la question di transport nga lim fi ay jafe-jafe yoo xam ne ne nga Macky Sall def na ko fi bàyyi ko fi mooy euh, ay endettement ak ñàkk xaalis kesu nguur gi yu ni mel est-ce que bu ñu sukkandikoo ci li nga lim noonu ci ay jafe-jafe mën nañ xaarandi euh, coût de la vie bi daal di wàcc. mënuñu ko. ah fan lañu jaar. saako la doon jar wax nañ ko de président wax na ko. saako ceeb. xam na fi ay mi ngi jar 15000. Mhm. tey fi mu doon sofee 22000. léegi différence boobu noonu fan lañ koy jaar pour maanaam man ko maanaam delloo di quinze mille francs en tout cas ci ces régimes bëri na ay fiscalistes ah boo jëlee. léegi fiscaliste ñoom ñaar maanaam ceeb bi dañ ko war di bàyyi fii ci réew mi di ko dunde loolu mooy seen premier objectif bi nu war a focal. Mhm. focus ci fexe ba mbay bi ñuy bàyyi fii li ñuy dunde autosuffisance alimentaire. ah oui ak alimentaire yëpp parce que ceeb bi la ñu ëpp lu ñu lekk. parce que tey Sénégal à quatre-vingt-dix-huit pour cent mhm. ceeb la ñuy dundee ci ceeb boobu noonu à soixante-dix-huit pour cent yëpp dañ koy jëggaane mhm. léegi ñoom fan ko doon jëggaane ñoom dañoo dem ba nangatuñ koo jaay léegi li nga xamante ni man moom laa leen di mooy dafa am benn programme ak projet bu mu amoon ci sama programme un cinq cinq mooy nekkal fi askan wi ni ñuy def ay DAC communal mhm. commune bu nekk ñu dugal fa deux milliards francs CFA woo ndaw ñi delloo leen ci mbay organiser leen aussi ndaw ñi bu ñu amee commune dak communal bu nekk danañ di mën di bay lu ñuy dund dit lu gis dëkk taax yi ñu taxaw si tëli yi si fooru si di jaay. Mhm. ba pare ñaar dana am loo xam ne daan ko mën a dem jaayi ko bitim réew. Mhm. loolu moom lañu ñu war a concentré cinq ans yi. Mhm. bala ñoo seen mandat jeex li bëgg ñoom ñu am ko. mais bu fekkente ni defuñu ko tey nga ne yow da nga bëgg waa ñu dund gi fa muy jóge mu yokk am crise entre Ukraine Russie am crise Israël Palestine am crise Israël Iran mais situation boobu noonu yow da nga doon jëli foofu noonu dund rawatina bale bi nga xamante moom lay defaree mburu hmm. nan ngay def. kon jàppoon ne daal wàññi wàññeeku wàññeeku daal mën na cee am. mën nañu wàññi man ma sañoon ma am de la vie mais c'est ni. Hmm. mënaguñ ko. mënuñu ko fii may wax yow nii kon ne woon suba dañu wàññi dund gi mënuñu ko. boo jëlee loi bi moom état bi. loi yi man sama kër gi ma tabax man état dina ñëw ne dama ne man moom sama kër gi. Mhm. leb banque courant bi euh, fer bi seer suuf si seer xeer bi seer maçon yokk seen i prix ma tabax sama kër par état ñëw ne ma kaay wàññi damay lànk man laa wax rek parce que dafa am loi boo xamante ne mooy li ñuy wax surface courrier. Mhm. mooy kër gu nekk dafa am valeur. Mhm. ñi fi jot dëkk ko si néew def na surface courrier pare léegi ban loi la ñuy indiwaat. lan war de mooy dañoo war a fexe ba locataires yi jóge sa location dem am ay kër. en tout cas gisoon nañ fi programme cent mille logements. léegi cent mille logements yooyu na na kii def diagnostic parce que cinq ans yëpp ñu ngi doon cent mille logements fan la cent mille logements yi toll fexe maanaam ba def procès bu nekk nit ku nekk am kër am caabi. Hmm. loolu laa gëm te loolu laay woote. Hmm. bu ko defee tey ñu def ay logements sociaux yoo xamante ni dañuy wax ni képp koo xamante ni bëgg nga kër mën ngaa am kër ci moyen de cinq millions francs CFA. bu ko defee su boobaa nit ñi dootuñu luye. Mm-hmm. ñëpp dem dëkk feneen bañ a xat-xatloo si dëkk yi man loolu laa gëm parce que loolu mooy li ëpp solo. Mm-hmm. pour que fekk nit koo xamante ni dafa leb xaalisam si banque tabax ay këram. nga mm-hmm. loo xam ne deux millions yeneen gi. kooku mooy yi dama dem bay seen di ko nangu. ba engagement ak banque. def seen jaay tayli seen kër ni ko chaque mois locataire bi ñu ko calculé ça fait quatre millions lay doon mu ne ko chaque mois daan la verser quatre millions léegi bu ñu ko wàññee nga verser léegi trois millions banque bi benn un million bi nga xam moom nga signante woon ak banque foo ko jëlee yow hmm. loolu yaakaar naa mënul am honorable on avance un peu en tout cas kilifa diine nga nekk responsable mouvement politique nekkal fi dafay baax ñu koy fàttali euh, ñi nga xamante ne également ñoom lañ tabb ci gouvernement bu yees bi am nañ ci commencé def ay sorties médiatiques ñu ciy nemmeeku yenn kàddu yi mel xaw niroog en tout cas frisé ay dérapage ku ci mel ni Birame Souleye Diop nekk ministre du pétrole et de l' énergie tout simplement ministre de l' et du pétrole mu am kàddu yoo xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci sport bi moo xam lamb moo xam également euh, lii di football bi jàpp ne lii di mbirum parrainage moom personnalité politique rawatina ministre yi moom dañ koy daal expression wala kàddu yooyu nga xamante ne ay ministre ñu ngi koy jël ci gouvernement bu yees bi te muy jur ay kàddu yoo xam ne nemmeeku nañ ci des accords loolu lan lay def ci gouvernement bu yees bi. waaw xam nga man kàddu Birame Souleye yi dama ko ñaawlu quoi parce que dama ko naqarlu trop parce que xam nga nit moom dafa am maanaam mile bu nekk lan la war a wax ak lan la fa war a ni mu war a doxalee daal ci ay kàddu. Mhm. tey tamit euh, li Serigne Touba di jàng si jàngal si naxjul xadaa yi mooy ay teggin dafay am solo rawatina ci ay kàddu yoo xam yaa ngi ko yëkkati. yow bu fekkente ne yoroo la loolu. Hmm. dénkuñu la ko sa yoon nekku si. Hmm. te bu fekkee wax moo la dugal kaso. da ngay baax bàyyi xel la nga doon wax parce que ku ne xam na ne waxoon na fa ak wax tojaanga ba dugg kaso man mi maa ko si génne. <laughs> ba ma koy dem di ko seeti. Hmm. man ak Assane Diouf ñu ñaar kese ñoo ko seeti ci kaaf bi. ci kàddu yooyu mu yëkkatoon ba may téléphone Alassane Ouattara. ci mbirum ci mbirum président de la république. waaw ba may téléphone Alassane di def fii sans point de presse pour que maanaam génn biram su lay jóg ci jafe-jafe Alassane Ouattara ah waaw jotoon jotoon ministre conseil Alassane Ouattara waxtaan seeg moom affaire boobu parce que dañoo waxoon ni dafa tooñ maanaam jiitu réew réewu jàmbur ma hmm. si Macky Sall woo si président assemblée nationale dem seeti groupe parlementaire euh, Benno Bokk Yaakaar dem seeti groupe parlementaire bi nga xamante ni maanaam mooy wàllu dox si tànk yu am solo xam nga tax ma def ko hmm. jëmi Ousmane Sonko te moom bi ma ko seetee lan laa ko wax mu ne ko dama la mere woon mu ne ma lu tax ma ne ko yéen dañoo bokk ensemble national bii man ak yéen ñu xeex ba ak si fii nii sama yaay hmm. gaañu ma gis fi ku nekk ba mu des groupe parlementaire yeewi askan. yeewi askan bi mu ne ma damaa jum. moom Ousmane. moom Birame Souleye Birame Souleye. yow mën nga gis nit koo xamante ne même bu fekkee bu sequ leen dara nga nekk député. Hmm. di liggéey ak moom ngeen xamante woon démb te doog a ñëw mu défendre sa patron ba dugg si kaso. yaayam faatu sa patron ñëwul jaale ko yow ñëwoo jaale ko te bokk ak mu ensemble national loolu foo ko mën a def manque concentration la loolu lépp bokk na say sama sama sama digganteem jafe-jafe yi ma ak ñoom ah. Hmm. parce que nit nag jëmm bokkul dëgg wax fen parce que ñoom amulul mën a yokk mais bu ñu ñëwee day mel ni man maay seen noonu assemblée parce que li ma sëñ Tuubaa defal moo leen neexul. Hmm. moo tax yenn kàddu yi na ko arrêté te focus ci leen ko dox pétrole gaz. Hmm. ak mbirum courant bi na xool nu mu gën a yeeyu pour wax askan wi lam fa fekk ak fan lañ toll c'est seen wàllu exploité pétrole bi gaz bi ñaareel bi 2016. Mhm. laa dégg Ousmane Sonko ne ñi ngi manqué pétrole bi ak gaz bi di ko yóbbu. Mhm. léegi na wax moom 2016 boobu noonu lan doon manqué di ko yóbbu fan lañ ko doon yóbbu ak yan batu ñoo ko doon yóbbu ak lan waxtu ñu ko doon yóbbu ak xaalis bi fan la jaar. Mhm. loolu lañ koy xaare alors passeport diplomatique yi kii di Adji Mergane Kanouté nekk député à l'Assemblée nationale bokk ci euh, euh, groupe parlementaire euh, Benno wax na ci doon voyager dem ba ci Assemblée nationale mu jàpp ni boo nekkee ministre sortant donte léegi nga def passation de service ak un ministre entrant waratoo mën a bénéficier ci lii di passeport diplomatique yi passeport diplomatique xam nañ ne ministre da koy yore député à l'Assemblée nationale da koy yore mu daal di invité ñi nga xamante ne ñoom ñooy les tenants du pouvoir actuel à la retenue mbirum passeport diplomatique boobu daanaka du coow lu bees parce que déggoon nañ fi coow loo xam ne asu amoon na ci assemblée nationale bi ñu ciy wax mbirum fraude ak yi ni mel lan mooy sa jàng ci mbirum passeport diplomatique yooyu nga xamante ne jamono jii nii vraiment mu ngi soulever ay critiques ak commentaires yu bëri ci espace politique bi. waaw xam nga mbirum passeport assemblée diplomatique dafa hmm. dafa bëri coow parce que boo xoolee. Hmm. nguur gu nekk rek bi nga ñëwee am nga problème passeport diplomatique. Hmm. jàppale Ablaye Wade jamonoy Abdou Diouf jamonoy Macky Sall. ba ci ñoom ñi xam nga ñoom dañoo jàpp ni passeport diplomatique dara la fekk du dara. Mhm. benn foor la bu ñu jëfal nit ko xamante day liggéey réewam. Mhm. ndax tey kilifa diine dañ koy am. Mhm. opérateur économique dañ koy am. tey député yi ni ko waxee noonu dañ koy am ak seen jabar ministre dañ koy am léegi lan moo war maanaam gouvernement bu fu ñëw bu nekk rek première coow li ngay njëkk am mooy affaire passeport diplomatique mooy affaire fayanto yi ngay wax noonu day tàmbali dikk. parce que ba barki démb. am nañu dëkk Touba ñoo xam ay kilifa diine ay kilifa diine yu dëkk Touba juróom-ñaari nit yoo xam ne déposé nañ seen Facebook rek ñu bale ko ko ci ay kilifa diine lan yoo xamante ni si nguur Macky Sall nga amoon ñun ñoo ko bloqué régime bi fi nekk nii tey seen passeport diplomatique ñu ngi simminé sa affaire transfert loolu moo tax may laa si biram euh, Diomaye Bassirou Diomaye Faye ngir kam mu wax ak ministre bi Yacine Fall xam naa ko bu baax ministre des affaires étrangères parce que man ak moom ñoo bokkoon ànd def benn combat contre Aliou Sall ci Nations Unies muy taw. Hmm. bu fàtt loolu man ak moom ñoo bokkoon combat bi. jóge maanaam New York dem di déposer li nga xam ne mooy suñ plainte. combat bu ma sa def bitim réew ma ak moom parce que ànd na ko rawatina Amérique. Hmm. Yacine moom xam na ma xam naa ko. Hmm. kon nañu fexe ba kilifa diine yi cër bi ñu amoon comme ni ma la wax noonu. ñu bañ a tàbbi ci li Macky Sall doon def di nangu seen passeport yi. ndax tey boo nangoo passeport ancien ministre. bu kilifa diina ñëwee passeport am doo ko renouveler. Hmm. mais est-ce que ministre bu nekkatul ci fonction également xel nangu na yu bari na xam nga bu ne ministre bu nekkatul ci fonction xam nga ministre de la république xam nga ministre de la république. Hmm. au moins bu dee benn bis liggéeyal nga ko maanaam ca réew. te ñi ko am ñaar fukki ministre ak juróom-ñett ba fanweeri ministre mun ñu ko passé ci ancien ministre. loolu wàññiwul dara. mais nee nañ am na ñoo xam ne dañ ciy business. lijjante ko justement di di ci di ci def ay fraude. ñu koy def business yoon da leen a war a topp. bu fekkee ne ministre dañ koy def laa wax mais yow da nga wax ne ancien ministre war na ko am. parce que ku liggéey sa réew. ba wàcc war na sa réew am na lu mu la waral xanaa te loolu ab sa la du dara. ndax xanaa ministre yi nga xamante ñoo liggéey seen réew passé nañu tey am passé du def lu dul noonu. parce que ñun ñi xam dañoo nekk ay député man bi may njëkk a tukki 1999 laa tukki man pourtant man bi may tukki.